waaye léegi-léegi dañuy ànd ak Ibrahima Diédhiou ndax koo xamul noo koy def nam la def rek a tax waaye leer na la ne lu yàgg ci diw niin waaye dend ak diw taxuta niin da nga bëgg a waxtaan ak l'ingénieur ci wàllum taw gis nañ ne Dakar euh, benn yoon la tawagum waaye taw bi foor na lool ba bés boobu ñu bëri dañoo tàdde ñenn ñi dañoo tooy mhm. euh, moom nag lu ñàkk mu wax ñu kañ la war a tawaat ah, ndax euh, xelam màcc na ci loolu lool waaw xibaar bu am solo moom moom la ñu xaar si moom mm. moom mooy Pape Ngor Ndiaye ku nekk fële météo parce que boo ne ñu bëri météo lañ gën a xam taw mm. Mm. tey te it Pape ngi leen nuyu. waaw ñu ngi leen di fay Diedhiou. waaw ma ngi leen di jaajëfal tamit seen disponibilité parce que euh, rarement ñu gis leen si plateau toog waxtaan ak ñoom tey dañuy def point situation bi taw bi tey te lan lan ñu mën a jàpp tey taw fii Sénégal rawatina Dakar ak moom. tout d'abord ma ngi nuyu nekk ci plateau bi yëpp nuyu téléspectateurs yi muy sénégalais yi ñuy déglu di fësal suñu kontante ci euh, ñëw fii plateau 2STV am nañ fi histoire bu ndaw anecdote souvenir d'enfance fii mais bon dinañ ci peut-être waxtaanaat après mais je vais venir à l'essentiel muy euh, wàllu nawet ji donc c'est vrai que ni ñun suñu liggéey nawet lay gën a fës mm. ndax ñëpp ñi ngi xaar kañ taw kañ la du taw tàngaay bi kañ lay jeex ak yooyu yooyu donc c' est c' est important mais bu ñu xoolee nawetu ren bi dafa xaw a particulier parce que euh, ñëpp gis nañ que ni wala constaté nañ bokk ni nawetu ren bi xawoon na yéex xaw na yéex installé wu et bu ma ko waxee waxuma Dakar kese c' est pratiquement l' ensemble du territoire sénégalais mm-hmm. actuellement nii mën nañ wax que ni nawet bi euh, tàmbali na bu baax ci bëj saalum réew mi booru Casamance jàpp Kolda Vélingara Kédougou ak Tambacounda muy Sénégal oriental bi la zone centre fi ñuy woowee bassin arachidier wu Sénégal Kaffrine Kaolack Fatick Diourbel et Bambey mm-hmm. mais malgré cette installation là gis nañ que ni c'est un retard qui a été noté pour exemple Kédougou def na pratiquement dix jours de retard par rapport ak. Euh, ci wàllum temps. waaw installation normale yi ñu daan faral di am. d'accord Ziguinchor aussi a eu dix jours de retard. mu nee ba zone centre dëkk bi c'est pratiquement entre vingt et trente jours de retard. Mm-hmm. pour exemple seulement daaw. Euh, nawet bi muy commencé le 27 juin. je sais pas si vous rappelez benn taw la woon bu indi ngelaw bu bëri taw ci dëkk bi yëpp le 27 juin. ren taw bi ñu ngi koy noté ci zone centre bi toujours le 25 juillet. donc il y a eu pratiquement un mois de décalage. Mm. entre les pluies de de, de l'année passée. et celles de cette année. loolu lan ko waral lan moo waral loolu. donc loolu bu ñu ko xoolee dañuy gis que ni la tendance actuelle mooy que ni euh, pour ren surtout dañuy gis que ni li nga xam ne mooy côté Sénégal bi géej bi dafa xaw sedd trop. Mhm. te bu xawee sedd trop ça ne va pas arranger l'arrivée des pluies au Sénégal. parce que nawetu Sénégal dafa soxla tàngaay ak humidité mm. alors que ngelaw liy jóge ci géej bi surtout sunu su noo dafa sedd mm. sedd boobu nag du dox jox assez d'énergie nuage ba mu mën a joxe taw donc c'est le cas particulier de cette année et que on a remarqué aussi ces dernières années tam c'est un cas qui revient souvent mm. donc il y a lieu de se poser des questions. Mhm. ci situation bi nga xam ne moo am ci côté Sénégal. j'ai tendance à dire aussi situation la boo xam ni arrangé na nappkat yi parce que mhm. seddaay boobu dafay indi jën. Mhm. waaye arrangé wul li nga xam ne ñi nga xam ñoom ñooy xaar taw. donc loolu mooy situation paradigme bi am entre euh, Sénégal ci diggante géej gi ak biir dëkk bi. balaa nga développé am na benn élément bu ñu préparé mu ngi fële boobu si côté Podor. dinaa yónni waari yi. pour ñu cliquer élément boobu mën dugg parce que élément boobu dawaloon na yaram tamit. effectivement waaw. les deux yooyu presque. 1270 hectares qu'on a pu que ñu def ci campagne contre saison bi mosuñu ko def mais ren def nañ ko dañu teel a def teel a pare encore ci récolte bi. xam nga taw bi dafa jafe ci département de Podor war nañu wax parce que tey ñu ngi ci presque le 29 euh, juillet ba tey gisaguñu dara donc éleveurs yi comme jóge nañ fu ne ñëw fii pour tool bi. wane na comme li ñu filmé gis ngeen ko yàlla def na éleveurs yi commencé jóg nañu fu ne loolu day waneewu importance ki benn importance encore ci mbéyum ceeb su doon loolu dina gën a encore peut-être yàlla moo yoree lépp de mais nag dinañu gën a encore sonn encore surtout éleveurs yi dinañu gën a sonn dinañu gën am problème. gis ngeen nag yoo xam ne ñu ngi fii dee nañ ci yoon bi ou bien ñu ngi ñëw nañ ba egg dee ñu dee yàlla moo def presque ñooñu dañuy tale dañuy teelul ñëw. fekk sonn nañ ci àll ba ñëw fii nag ñu am nañu sauvé mais am nañu dèjà ñuy des ci ci ci ci ci àll ba ou ñeen ñu xam ne dee nañ ñu ngi ñaal président de la république monsieur Macky Sall ministre de l' agriculture Moussa Baldé le ministre de l' élevage Samba Ndiobène Ka qui connaît très bien la SAED qui connaît très bien la cuvette de Aïda et le directeur général la SAED ñu def un appui pour les éleveurs et les agriculteurs ki sont là yoo xam ne dèjà tey euh, aménagement suuf am na. bëgg na ñu aménager parce que 1270 hectares hmm, yàlla def na baax na mais vis-à-vis de la population dafa xaw tuuti ci ñun suuf bi am na ndox bi am na naaj bi am na yëpp am na dañ ñaan encore le président la république ñaan encore gouvernement Sénégal nañ gën aménager aménagement yu yaatu encore ñëpp mun ci xaj ñoo xam ne déjà dina gën a ñëriñ encore Sénégal. Euh, Pape Ngor gis nañ ko dem nañ fële ba Podor diwaan bi ñu ne arrêt laaw ba 29 juillet bële passé ñu ne amul taw. tey ban mooy réponse bu ñu war a indi si ñàkkum taw boobu ak tamit euh, ban prévision la ñu mën a xaar si si saison bi. bon li ma ci wax mooy que ni euh, malheureusement les gens ne font pas beaucoup attention ak temps bi ni muy mel léegi dañ nekk ci benn bouleversement. partout dans le monde dafay am contexte su changement climatique bi dafay daw pas plus tard que semaine dernière yéen a ngi dégg canicule bi nga xam ne dafa am mm-hmm. Paris loo xam ne c'est pas aussi fréquent mm-hmm. dem nañ ba Paris enregistré 42 degrés 42 degrés ñu gis loolu voilà en fait 42 degrés Podor nga koy gis wala Linguère wala Matam donc bouleversement boobu la nit yi bàyyiwul xel ba léegi ci contexte changement climatique y a un aspect important muy baisse des précipitations te baisse des précipitations boobu ni muy amee dañuy am un terme technique bi ñuy wax mooy déplacement des isoyettes tout le monde sait que Casamance mooy gën a taw Podor certainement parce que looy gën a jege équateur bi mu gën a taw maintenant déplacement des isoyettes boobu mooy que ni Podor li faral di am comme taw pendant Euh, daf koy daf koy ñàq léegi ah, c'est-à-dire Diourbel li naan am comme taw euh, Podor euh, Podor li naan am ko mooy taw Diourbel moo koy jël léegi Diourbel moo koy jël hmm. léegi Podor lim daan am comme taw da ngay nga dem Mauritanie jël fa benn localité loolu ñëw Podor c'est tout le monde sait que ni Mauritanie daanaka des zones zone désertique la hmm. pratiquement donc pour dire juste que ni désertification bi dañ koy jël en donc ni taw bi dafay raréfié wu d'année en année et hmm. progressivement mi ngi commencé dans la zone nord et lan lañ ci mën a jàpp pour wax ni que rek baisse des précipitations moo am. et d'année en année loolu mooy gën a fës. ci ci bi. en tout cas d'accord surtout au niveau du Sahel. ba am na prévision pour ñu xam ndax taw bi mën nañ ko xaarandi encore si. waaw effectivement wane ñu ngi ci nawet et que forcément il va pleuvoir un jour ou l'autre mais actuellement gis nañ que ni. Euh, mhm. fan yi di ñëw dina dal dina dal bu baax. d'accord mais d'ici euh, la semaine prochaine ni yaakaar taw boo xam ni dafay euh, taw ci daanaka goxu Sénégal bi yëpp ba ci bëj gànnaar bi. très bien merci beaucoup monsieur Ndiaye dinañ ci ñëwaat léegi nii muy ingénieur prévisionniste foofu ci ANACIM ñu doon waxtaanee li nga xamante ne mooy point de la situation de la pluviométrie fii ci Sénégal ñu àndoon ci ak Ibrahima Diédhiou.